waaw ah, asalaamaaleykum. Diallo na ngeen def. ñu lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar. am na xam naa dafa nekk sa liggéey métti na de waaye nag lépp noonu la rek. <laughs> ñoo ko bokk ci la leen nekk nag waaye waaye wax dëgg yàlla yéen ñii yéen a ñuy wan xibaar yi wóor wér am na solo. vraiment ñu ngi ñaanal émission bi xam nga kuy borom moom yàlla na ko yàlla yokk. amiin amiin amiin télévision bi. amiin amiin yàlla yokk ñëpp. vraiment vraiment seen liggéey rafet na quoi. merci merci beaucoup. waaw vraiment ñu ñaanante balaa heure bi doon mu nekk xale bu mag a mag a mag ba ñëpp di ko xëccoo. amiin amiin wala mbokki premier wala di mbokki dix waaw baax na gaa yi dañuy xel na nopp loolu la ñu alhamdulilah mhm. alhamdulilahi rabbil alamina dëgg moo njëkk te mooy mujj. Mhm. kon Sénégal yi nañ yeewu te xam ni ñoom li li nekkoon loolu woon dëgg li lii dëgg mooy yoon def na ko démb. Mhm. leer na lépp. tey dañ ne woon Ousmane Sonko ko xoolaal sànq moom moo moom moo gën moom moo gën suñu kilifa diine moo gën suñu kilifa aada yi nekk ñëpp moom ñëpp ñoom lépp moom dañ ne woon Ousmane Sonko moo gën li tey ma nga xam dëgg rek mooy dëgg mm-hmm. nga gis nga yàlla boo nekkee seytaane bu la jiitalee yàlla da lay da lay jay nga tëb di dal mm-hmm. nga naan man la man la di di fëkk sa dënn mm-hmm. mais gis nga seytaane bu lay bu lay daane dëkk bu ñëwee day fekk seytaan ni ko pël moo leen dal démb ñoom ñëpp ndax démb maa lay woo ñu la même seen part bi ñu ko dindi yàlla def far far sax ministre bi mu ngi doon dégg. Mhm. parce que récépissé dañ ko war a nangu loolu que parce que parce euh, mhm. xam ni dañuy xeex l'islam di xeex diine di reyante di yàq xoolal tey li ñuy yàq démb ak tey. Ah. yàq ku ñu fi état de yëf yi yëf seen yëf yi morom la ñuy yàq. Mhm. dem liggéey nga indi teraangam dem fan fan tëj nañ dem fan xam ne yow ngand la ñu dem génne ko waaye kay keneen ku ñu xeexal tooñ nan la keneen ku ñu yàqal tooñ nan la. lépp nga xeex nga def fa tëj Ousmane Sonko ñu xam ñi jàmbaar ne fa tëj Ousmane Sonko ñu koy génn. loolu kay mi ku si waxul dëgg wax la te def te xam ne gars yi xam ne nekkuñ ci dëgg. parce que boo xoolee ñi ay fenkat dong moo leen jiital parce que seytaane moo leen nax mais xam na ne lii ñuy wax yëpp ku bëgg a dee da ngay génn dem dee waaye doo taxaw képp ku bëgg a dee amul kenn ku bëgg a dee taxaw a dee ku ci dof dof na la yàq alal jàmbur mandat ku la nar a rey nit na la leen rey balaa booba te mhm. continuer moom jërul jaale ñi dee ñiin yëpp kenn jër see jaale jërul sa sang mën na leen suul noonu parce deewuñu su lu baax deewuñu su bon daal yow fekk bon nitu naafeq nitu fitna ñuy xeex ci moom ba dee ci kooku am bu ñu dee sawar lañ jëm ñoom ñëpp ku ci dee sawar nga jëm. waaw dëgg la wax ne dëgg te yàlla tax. ah te te te. allo man te ñoo ñaanal ñett nit xam ne ñoo jot a ñàkk seen bakkan démb rek ñu ñaanal leen non ku si ku si billahi wala ay ku ko jar nit ki da wax dëgg gis nga sëñ bi nit ki buy dund ñuy dégg ñun ñuy waxal ñun ñuy dégg ku bëgg a dee ku si dee nii jëloo ñaanal jëloo sàng jëloo def dara man laa ful noonu mhm. parce que noonu ñuy dégg parce xam na ni booy dee da ngay dee si dëgg doomu mhm. Ousmane Sonko dafa dee wala dafa xeex wala jabel Ousmane Sonko ba la jëlee Ousmane benn jabaram bu bu génn di xeex lu nekk fa di di génn benn vidéo naa ah, bàyyi ba Ousmane nekk fa di saytaan di wane naan eh, eh, bàyyi ma bàyyi ma mhm. mhm. léegi dof yi nga xam seen ndey yi nooy génn naa dañuy xeex wala di génn ba rey leen ñu mooy seen ndey yi rek kun ci rey rek sa ndey yi liggéeyul sa bàyyi liggéeyul kun ci rey mu fi kenn génn naan sama doom di moom laa yaakaaroon ndax yéen a ngi seen doom di leen bàyyi ñu yàq yi fi jàmbur di yàq alalu jàmbur ñu de taxaw génn di woo siti taxaw naa sama doom bi moom laa yaakaaroon moom laa doon dimbale léegi wàcc na fi njaboot ko ku ci génn bànn rey la jëru sax nu nu lay jaale barki yàlla lay wala jërul jaale mooy dama du ma la jaale man parce que dañu mun koo xam ñaar mm. mm. na liggéeyam mais du mu def Ousmane Sonko liñ ko liñ ko wax moo wax lii moo te lépp ki lu mu wax ba nit nit ku nekkul dëgg nga ne kii li mu nekk mooy dëgg loolu foo am ci àdduna Mm-hmm. nit mais kon ne ñu ne li ñu def li Ousmane Sonko def ñoom def yoon dañ lay teg si yoon réew mi lu waale baax dëgg yàlla démb démocratie moo demee ne am na Sénégal nañ ko mën nañ koo baal yàlla mën na sax après Macky Sall baal ko wala dara mais rek na yoon def liggéeyam lii leen bëggoon yoon def liggéeyam rek mais yéen a ñu mu nekk foofu tëdd fa rek abadan daay man ndax lii la doon ñaan yàlla yoon bu defee liggéey ba Sénégal ëllëg Sénégal bu jóg def lu loo def lu wóor def xam ne yoon a ngi fi yoon am na mm. mais buñ lu waa amul waaw maa ngi lay siyaar baax di bëggee di rafet sa liggéey baax a baax a baax jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf Diallo ñu ngi lay nuyaat bu baax baax di siyaar ñëpp ñi nga xam ne ñi ñu ngi bàyyi xel Italie jamono ji nag ah, dafa mel ni fu ñu naan euh, Bambilor ak kam am na fu gone ya eh, tàmbalee eh, daal di eh, taal donc ci information yi nga xam ne jox nañu ko Sangalkam ak Bambilor la foofu ay manifester itam jot na fa daal di am te ci suba itam Sigicoor foofu ah, ci image yi nga xam ne jot nañu ko daal di envoyé ay camion benn camion lañu daal di jël ak i garab daal di koy gal ci yenn artère ya nekk ca biir dëkk ba voilà di remercier bu baax a baax sunu vraiment sunu correspondant yi nga xam ne information yi la ñoom ñu koy daal di envoyé salaamaaleykum maaleykum salaam. mbokk mi na ngeen def. sant alhamdulilah. foo ñu woowee. maa ngi lay woowee Mbour. waa Mbour. yaa ngi fi ci jàmm. maa yëpp ngi ci jàmm. sant rek. bismillah. waaw am ko dugg léegi. moom nee nañ. waaw waa Pastef yi xeex sëriñ yi. ba wax na nee ñu dee si manifestation bi xul ma safara nañ ko. Mhm. mu wax noonu teg ko fen Mhm. ñoom ñoo gën a yey ci safara moom ak sëriñ yu yaakaar ñun mhm. ñëpp ay taalibe sëriñ Tuuba lañ mais nit yàlla bu nekk dafa am doomu xol doomu doomu ak doomu xol man gëm naa ne sëriñ Tuuba bu ñëwoon jamono yii nii nii nii Ousmane Sonko defar mhm. ni nga waxee yow jalousie Ousmane Sonko jalousie moo ko topp ni nga wax Sonko mu sell ne nii mooy dagg seen xol kenn gënuñoo doon ay sëriñ Tuuba lépp lu ñuy nàmb ji Serigne Touba ñoo ko dàq bu dee xasida ñoo leen ko dàq a jàng bu dee ci baaxul barki Serigne Touba li yaakaar nañ ni defet la la d'accord si kanam tudd nañ comprendre la ma ko bëgg a yooyu ñu yaakaar ñoom ñooy nitu safara ñoo jëm safara na mu dugal ko si boobu Sénégal li fi xew ñëpp am nañ ko Ousmane Sonko réussir na mission am yéena li li ma leen wax nii di ngeen ko xam ci kanam loolu laa amoon si lu ma lay wax moom mooy nit safara ak sëriñ mu yaakaar. merci merci dara alal àdduna dong lañ jëm. merci jaajëf jaajëf nit safara nañ jëm. jaajëf kontaan kontaan bu baax a baax a baax a baax ah, euh, di ko di ko di ko di ko remercier bu baax a baax a baax xam naa régie nga may ma communiqué bi nga xamante ne euh, gouverneur bu euh, Dakar daal dina koy génne ah, laata ñuy jëlal ki nga xamante ne moom moo ñuy. mooy euh, salaamaaleykum bàyyi ma jël ko salaamaaleykum allo. allo waaw sëñ bi. ça ngi ci jàmm. ñu ngi ci naka liggéey bi. ñu ngi ci kaw. foo ñuy woowee. diwaanu Ziguinchor. Ziguinchor. oui oui. waaw Ziguinchor nu ñu nag foofu am nañ fi ay image ne ay euh, ay euh, camion la ñuy jël ak ay garab daal di koy gàll ci yenn yoonu dëkk ba. non man liggéey bu baax xëy na sama production bërëb liggéey waaye bu waxte nii daanaka ba ma xam ne parfois ak déficience yi la nga xam ne nii xëy na bu ko doomu aadama doo yëkkati di ko wax mhm. jëmale ko ci li nga xam ne nii ay ndawi réew mi ci Sénégal war na mën a sellal wax ji gën ko rafet mhm. sëñ bi Sénégal bi ñu ci bokk te kenn mënu ko xam ne mhm. gis nga xale yi jóg bu xeex ngir xeexal seen réew nag man dama jàpp ne loolu moo leen tax a jóg bu ñu teewee lu ci war jàmm mooy ñaanal leen mais ci génn tànk naan xale yi jaruñu na ñaanal kenn yu liggéey sama yeneen ak yeneen loolu yàq ci man nag maa ngi jégalu bu baax mais dama koy xamal ne loolu sa wax kilifa bu doon doon a ñëw wala keneen ak keneen wax di ñun nag dañu nekk ay ndaw nekk suñu ñu yàqaluñ ko waaye nag suñ nañu am nañ ñu naqaralu ñu yokk ci réew mi ndax ay citoyen maa ngi ciy jégalu bu baax d'accord d'accord ñoo ngi koy jaajëfal bu baax baax euh, di ñuy ñëpp ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi bàyyi xel ca Ziguinchor comme ni mu leen ko doon waxee sànq nag euh, gouverneur bu Dakar jot na génne ab communiqué ngir xam ne ne euh, li nga xamante ni moom fi lañ fi jëloon dogal ne du ñu jaay essence ak ak li naan xeetu liquide yooyu ñuy def ci oto wala ci moto ci ay gurtu daal nañ koy prolongé waaye itam moto yi yi nga xam ne dañuy daw ci région de Dakar yëpp aye nañ leen ko ba tey minuit donc loolu nekk nekk na communiqué boo xamante ne euh, gouverneur bu Dakar moo ko daal di euh, génnee daal di koy euh, jagleel askan wi beneen communiqué bi nga xamante ne jot dox jot nañ koo jot moo di communiqué bi nga xamante ne itam ministère de l'intérieur moo ko daal di génnee di xamle ne am na ñaari nit yu jot ñàkk seen bakkan ci ay manifester ni ki dem waaye nag bilan ba yokk na ndax dem si guddi itam am na keneen ku ñàkk bakkanam foofu noonu te Ziguinchor ba tax jamono ji itam jot nañ gis ñetti nit xamante ne ñoo ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci manifester yi nga xamante ne amee na euh, démb tey nag maa ngi leen koy wax ci suba si tàmbalee nañ ñoo signalé que am na ay manifester yu am euh, ca fi nga xamante ne moo di Bambilor ak <coughs> ca ca yëmbal salaamaaleykum waaw maaleykum salaam ça foo ñu woowee yaa ngi woowee Sénégal waa Dakar ñëpp ñu ngi sant yàlla. ayca bisimilah ci waxtaan wi. kudd wax na tooñ baaxul. gis nga ku dugg xam nga danga ne dangay wax sa xalaat parce que fii du waxu ay waxu tombe am na ku dugg nee na lii du woon waxu dëgg waxu dëgg bu doon waxu dëgg du doon tey gis nga nit ñi nañ bàyyi tooñ yàlla bëggul kuy tooñ mhm. te gis nga topp mu tamit ba ci niir bi mhm. baaxul gis nga Firawna bi mu dàqee Moussa ba ci biir géej gi ba Moussa dem su ko bàyyi wax xam nga du dee soxor moo tax mu dee ndax Moussa dafa dugg mu ne koy dugg jàpp ko moo tax mu dee te tooñ baaxul. gis nga parce que suñu borom ku mu ne dañ ko fanaan benn jour sax dañ fa fanaan. moo tax président Ousmane Sonko mu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla génne te may ko xol bu mu muñee. mais gis nga képp kuy jubale nañ la bàyyi ak sunu borom dina seetaan ba xam ndax sunu borom kuy tooñ lay faral. wala ku dul tooñ am naa daal lii metti na metti waaye boo xam ne. maa ngi waat ci sunu borom su ñëpp seetaanee bàyyi ko nii. Mhm. Macky Sall ci biir nit ñi lay fekk seen biir kër naan leen tey togg leen ceeb bu xonq bu leen togg ceeb bu weex bu leen togg domadaan. Mhm. xam nga dëkk tamit pour mu jaar yoon dañ koy jaarale ci yoon. Mhm. nit mënoo ko ëpp doole rek noot ci biir àdduna la ñu nekk nekk ñu ci géej ñëpp nag ngi toog di seetaan yaakaar ne ñu ci lañu. mais lañu seetaan rek bàyyi loolu rek laa moom may wax maa ngi sant maa ngi sant di la gën a. ñu yenn jaajëf jaajëf ñoo ngi koy euh, nuyuwaat bu baax baax euh, di ko remercier ci euh, xalaat woo nga xamante ne am na ko ci wax